salaamaaleykum mbokk internet ak abonné wu seen xibaar info dal leen ak jàmm dellu siwaat nañ nag indi leen ab xibaar ci version Abdoulaye Diouf Khass mi nga xamante ne daal dina yëkkati ay kàddoom di indi ay leeral ci divorce am bi nga xamante ne moo dox ci digganteem ak jabaram boobu ñuy wax simbulu ba internet beeg réseaux sociaux yi ñëpp di ci yëy bi Abdoulaye Diouf Khass nag ci benn live boo xamante ne choco non stress daf ko doon daal di amal ci la daal di yëkkati ab téléphone daal di koy woo Abdoulaye Diop Khass di ko xamal ci audio boobu ne moom divorcé wul Soumboulou benn yoon ndax couple boo gis ci àddina dafay am problème xom nag looloo ko dal ak jabaram bii di Soumboulou ba mu daal di dem seen kër waaye loolu nag tekkiwul benn yoon ne daf kaa daal di may baatam Ablaye Diop Khass nag yemul foofu ndax ñi nga xamante ne ñi ngi yëkkati baatu divorce mi ngi xamle ne ñooñu nag dañoo xamul di xew waaye moom ak jabaram bi dañoo am problème te gëm na ni dina delluwaat ci biir këram di like ak di commenter suñuy vidéo ngir mën di jot say su nek ay xibaar yu wërté woor itam bobu nak ñuy wax aji mas gannaaw bu mu yëkëté ay cadeau ci ab émission ba mu doon def feul ci sénégal 7 di siwol divorce bi nga xamanténé sumbulu dal dina koy def ak borom kërëm ba tax tiktoker yu bari ak youtubeur yu bari diko si dal naan limu def waru ka def mom nak ci live bobu sokono stress doon def dal dina gennat indi ay leral ngir mëna setal deram mom nak mi ngi xamlé né la siiwal foofu ca Sénégal seet ci biir plateau ba loolu yëpp Soumboulou moo ko ko daal di digal ndax moom moo ko ni na ñëw fekk ko biir këram fële ca kër bàll Gaye ngir ñu mën cee waxtaan léegi nag moom mi ngi xamle ne ca samedi ba la daal di dem kër Balla Gaye fekk fa Soumboulou ñoom ñaan ñu daal di toog di waxtaan ci la ko Soumboulou daal di xamal ne dafa divorcé ak Abdoulaye Diop xaas waaye bu sañoon xaritam bii di Adji koy siiwal ci réseaux sociaux yi ndax moom xam na boroom këram bu baax ci la Adji nag xamle ne comme moom xaritu Soumboulou la du ko bañal dara ci la daal di dem nag toog ca émission ba di ko siiwal pour ñëpp mën cee jot nag mi ngi xam le ne na mu doon waxee ca émission ba ku ko déglu bu baax xam ne jaxase taxu koo jóg ndax dafa doon sotle xaritam bii di sumbulu teg ci di xamle ne sumbulu nag wax na ko motif yi tax mu daal di divorcé ak Abdoulaye jóg xaas waaye loolu dafa am bàmmeelu biir ndax du toog benn yoon ci internet di ko ko fa waxal ay boobu nag Chocono stress dem na sax ba di xamal kii di Adji kii di sumbulu daal di saraxee ndax taxna ba internet bi